am na ñeenti leetar yoo xam ne dama koy adressé ñeenti kuréel leetar bi ci jëkk mooy étape senegal bi nu nekk gouvernement bi am na ay laaj yoo xam ne kenn ku nekk kuy xool sécurité suñ réew mi fi mu nekk war nga koo laaj mooy ba kañ lañuy ñuy di gis fitna yu mel jaar ci seen kaw di jàllale yéene yoo xam ne mooy taal sunu réew mi loolu bu ko kenn man loolu yi nag moo tax maa ngi fedd li ci seen kanam ne nun day saaga wun gërëm loo wun it saaga walla xaste waxuma la nag di ko digle li ma doon géeju doon ñaan yàlla mu am tey mooy gépp kilifa diine goo xam ne jiite na mbooloo mu mën a taxaw ci kanam mbooloom def déclaration bu mel noonu wax ña ca gannaawam di ko déglu ne leen bàyyi leen saaga si ak xaste bi te dem liggéeyi su fekkoon ni kilifa gu nekk def na loola kon lii nuy gis muy am ci réseaux sociaux yi du am ndax kat saaga yi lu ci ëpp boo ko dégloo ñuy fayu waaye duñu toog ba mu yàgg rek ñuy saaga dangay gis kii ñu saaga kilifaam moom it mu saaga kilifa kële waaye loolu moom lool yi ma ci wax rek kilifa kële abaana defu la dara da bëgg mu mer waaye nag loolu jaru ko ñu wax ne dafa am ca yaman koo xam ne dafa am égyptien bu nekk ci seen kër di liggéey ñële it ay dëkkandoo lañ ñoom it am égyptiens yu fa nekk di liggéey yàlla dogal bi ñii di xuloog ñéle ba ab xeex am ca bañ rey ko ñoom it ñu ne faw danañ rey égyptien bi ñu ci des faw ñu seet seenub égyptien ñoom itam rey ko waaye waaye kii di borom kër gi rey rey rey sa surga bul ne ab surga am laay rey waaye moom nga séqal moom ci jëmmi boppam kon léeg-léeg ngay fayu fekk yaa ngi jéggi di laal koo xam ne moom deful dara lu mel noonu nañ ko war nañ ko wàttandiku ñetteelu leetar bi maa ngi ko jëmale ci sunu waa dëkk muy waa Touba ñoom laay waxal waa dëkk boobu ñu xam ne nun day bokkunu ci ñi nga xam ne dañoo jekki ba mu yàgg ñu ne noo ngi dem Touba ngir wuti fa wërsëg waaye nun kat dañ ni xifeet rek xammee nday jor càmmoñ fekk suñ bopp ca dëkk boobee samay baay man mii di maami Ibrahima mii dañoo participer ci fonde dëkk ba maanaam ña ko doon sos di ko gor gajje ba dañ caa bokk te seen rëddi baaraam yooyee day des ca dëkk boobee histoire di leen ko bindal ba faw te loolu kenn mënu koo far histoire dëkk ba mënuñu caa mënuñu caa génne donte nag am na léegi ñoo xam ne lëjal nañ nit ñi ci wax lool lool ci wet goowu danaa ci dellusiwaat ci kanam ñaareelu tomb bi may wax foofu mooy noonu day wax dëgg yàlla lan jàppoon lan jàppoon moo di Cheikh Ahmad Bamba moomee nu xam tam bind tasawudu sigaar bind tasawu tasawudu subbaan bind masaalikul jinaan bind munawwir sudur lan xam ca mooma Cheikh Ahmad Bamba day mooy ci alxuraan ak sunna la nekkoon ci la doon woote ba fa kem kàttanam yam ca loola lu mu daj lu nekk it jàpp na ne loolee moo tax mu daj ko ci ay coono waaye nag nun danoo dem ba jëmbi jamono coow li bari lool ku woote alxuraan ak sunna ñu ne kii dafa wuute ak njàngalem sëñ bi nu bëgg a xam nag njàngale moom yi nga xam ne dañoo wax ne ku wuuteek moom ñu génne la dëkk boobee njàngale moomu lan la lu mu doon nañ ko leeral bind ko def ko ci kayit ñu ne dañoo bëgg kuy dëkk ci dëkk bi sa diine da koy teg ci nangam ak nangam ak nangam su fekkee loola du alxuraan ak sunna su boobaa moom ña bëgg a dund alxuraan ak sunna seenu génn moom diisu leen ko wax ñoo koy defal seen bopp ñetteel ba ma ne gàcce la gàcce la nit mën a taxaw ci péncum tuubaa di woote média bi yépp wër ko muy wax ne képp koy wax yàlla nee na wala yonent bi nee na dañ la war a génne dëkk bi àgg ci di wax ne recensé nañ école yi jàngale alxuraan ci dëkk bi yépp danañ def dox dox suñuy jéego ngir tëj ko waaw ecole yi al daaray alxuraan bu fekkee tëj nañ leen su boobaa yan façon daara la ñuy ubbi la ñuy jàngale lu muy doon dafa mel ne ñooñ dañoo bëgg a wax ne daal biib dëkk muy suñ dëkk nun ñii dañ koo ubbil képp koo xam ne dangaa jël ndigali yàlla teg ci suuf dañ koo ubbil képp koo xam ne bëgg lépp loo bëgg a wax jëmale ko ci yàlla akub yonentam ci kàddu yu ñaaw mën nga ko wax ci biir dëkk ba waaye nag bis boo nee kaay leen nu jàpp ci alxuraan ak sunna te bàyyi biddaa ñu ne yow kon wóote nga ak njàngale bi bi kon lool yi mbir la moo xam ne dafa war a leer nañ ñenteel ba ñi nga xam ne saa bu ñu waxee ne nañ génn dëkk bi nañ génn dëkk bi nañ toj kër yi nañ def nangam ñooñu war nañoo xoolaat seen bopp mëneesut kat ku woote ci tawxiid ñu ne kii nee na dañuy bokkaale ku ne bàyyi leen bokkaale ñu noonu lay wax ku digle julli ñu ne ah kii de ab kuréel lay gaaruwaale ku wax ci wàllu mooy yàlla ñu ne kii nun lay wax loolu yi ka koy def lam bëgg mooy nit ñi noppi bañ a waxati bañ a jàngale diine yàlla ñu bañ koo tasaare te loolu moom kenn mënu koo am kenn mënu koo am juróomeel ba mooy jaadoo na ngeen xam ñépp itam xamaale ne lii xew ci jamono yu mujj yii lu caagi ne ak jaamaar loola gu dox diggante tariqa murit ak ñi nga xam ne ñoom lañ naloon a dal ci seen kaw lu loola waaye dafa am ak kuréel bu nekk ci seen biir boo xam ne man am naa lu wér ci ne waa dëkk ba la ëpp ci ñoom ànduñu ñoom ci loolu yàlla xam ne li ma jot ci ay téléphone fan yi jóge sax ci ay kilifa kilifay diine ca biir dëkk ba yuy ŋàññi wax ji di ko naqarlu kenn xamul nu mu kuréel boobu yi nag yàlla xam taxawaay boobu yi muy taxaw ci biir dëkk boobu yi lan la ci jublu ak ñan ñoo nekk ci seen suuf loolu yàlla ko xam waaye daal gis nañ koo xam ne ca ponki kuréel ba la bokk mu taxaw ci kanam mbooloo di wax ne sooy boo guerre taxaw ñun loolu faale wuñ ko di ko wax ci média bi nga xam ne boo demee ci fam ko génne woon ba léegi boo fa dem da nga fa fekk wax jooju kon nag kuy wax wax ju mel noonu te bokk ci kuréel bu mel noonu sa mbir moom ajanaa tey juróom-benneel ba ñu bari dañuy laaj suñuy soppeek suñuy mbokk ak suñuy xarit ak di wax ne waaw yéen lu ngeen di def ci dëkk boobee bis bu ne ay menace bis bu ne danañ def nangam danañ def nangam ba noppi ngeen continuer nekk pare xanaa mën leen a génn lañ leen di tontu mooy xuux daf ñoo dàqut dëkk ba ñay wax naa nañ leen génne noo leen fa gën a cosaanu am na waa ju ma ko waxoon ci ay jamono fekk muy wax nekk ci biir aw xewam naan ñoo ñi nga xam ne ñoo maliyen yi ñoo bokk danañ toj suñ xabr yi danañ def nangam danañ def nangam ba àgg ci jaar ci sama tur wane ne ñooñu dañ leen war a génne dëkk bi ba ma koy tontu dama ne ko yow danga fàtte ne dawal sib sareet moo la indi woon Tuubaa nga ñëw làqu ci kër kilifa ba mu yàgg kilifa nga boole la ci yëf ya nga wëlbatiku jekki-jekki soppi saw tur soppi sa doxiin wëlbati ku bokk ci waa dëkk bi ba jàpp ni ñu war a mën a génne nga waaye ñeneen ngay mën a génne ñu dul nun ñi kon nun dëkk boobu dañ caa bokk yaroo fa ni fa mboolem ña fa dëkk nañ fa dëkke participer itam ci développement dëkk ba lu ñu fay woote ci lu koy jëme kanam sunu loxo daf cay nekk kon nun dañuy wax ne min ahliha haqqan dañ caa bokk loolu moo tax génneenu fa nag par force loolu mu munta nekk xanaa day fekk bakkan yi nekkatu fa waaye moom par force munta nekk wa man qutila doona maalihi wa ahlihi fa huwa shahid loolu munta nekk yoon wi nga xam ne daal génn ga mënoon naa am te yomb génn ga mënoon naa am te yomb mooy dëkk bu ne nag am na jëwriñ maanaam am na koo xam ne moo moom dëkk ba nekk premier responsable ca dëkk ba saa boo xamee ne jaar na ci turu nit wala mu bind ko leetar wala mu jox porte parole am ne ko diw sàngam na génn dëkk bi yàlla xam na ne lu mel noonu su amoon ñaar du ko dégg te li ñuy yam-yamle yam naan buy génn ñu remboursé leen lañ defoon ca kër yaag bu boobaa ñaari dërëm duñ leen ko soxlaal duñ leen ko soxlaal loolu mooy lu aju ci sama mbir man looloot sama rafet njortu ci responsable yi dëkk ba jàpp naa ne amul benn xalifa buy ñëw di wax wax ju mel noonu ci sama rafetuk njort ah lu dul xanaa bu borom piliyaan ba demee ba nekk ab xalifa xëy amma amma Cheikh Ibrahim Khalil nag Cheikh Ibrahim Khalil ca ngaabu kooku moom kenn mënu koo génne foofu lum mën a teg génne ko lum nu mën a teg ci peen dana koy teg waaye mënta génn suufus maamam ngir ay waxi ku nekk ci beneen béréb loolu mënta nekk kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne dama ko jëmale ci sun dëkk boobu yi kàddu ñeenteel ga askanu senegaal xam ngeen ne day sécurité am réew akuk dalam kooku responsabilité ñépp la nekkul responsabilité état rek te xam ngeen ne réew yi nga xam ne xas nañ ñàkk ak dal jàmm jóge fa réew yooyu mënuñoo jëm kanam mukk dañuy dellu gannaaw te xam ngeen ne suñ réew mii tàmbali na di nekk ci benn contex boo xam ne bu spécial la muy ay mbell yu fi tàmbalee feeñ yoo xam ne mépp réew moom feeñ te jariñoo ko nañ ko war a jariñoo réew moom yi dana tëb am tëb mu rëy rëy rëy tëbum góor ci wàllu développement ci lu jëm ci économie loolu nag fu mas a nekkit day ànd ak coow lu bari ànd ak ay fitna ànd ak ay yàqkat kon war naa tax ñu gën a bàyyi xel lépp loo xam ne luy indi fitna la ma ne réew mu mel noonu aajo woon ab état boo xam ne bu dëgër la nag état nag bu dëgër ci régler lépp loo xam ne lu aju ci wàllu sécurité la ku wax lu ci jëm bantub almet sax ku ko yor bala ngaa taal ñu ne la looy bëgg a def réew mu mel noonu état bu mel noonu soxla nañ ko fii mu nekk nii lañ ko gën a soxla ñaareel ba xam ngeen ne lu bari ci réew yi tey lakk na ba jeex daanaka dellu nañ gannaaw ay nangami eh, téeméeri at sax boobu tuut te fekk la ko waral sabab su tuuti la tàmbalee woon ñi di ko seetaan ba mu àgg ci wëlbatiku taal am réew réew yu bari tey ña jógoon di def ay yëngatu ba mu toll fi mu toll liñ doon ñaan mooy ak neexoon ñu delluwaat fañ nekkoon bañ yëngatoogul woon kon nag jël bind ci la say morom di dund loolu lu jaadu la ci ab jullit ñetteel bi mooy sun réew mi dafa am tawfiq ju leen yàlla defal muy li fi nekk ci ay askan ak ay sëddiit ak i deret yu bokkul musta dem ba yóbbe leen ñi doon ay noon loolu musta am dafa doon kay loo xam ne indil na leen sax ci tolérance loo xam ne réew yu bari amu ndax sant sàngam wala famille sàngam ak famille sàngam ñu doon ay kal euh, xuloo jeex seen diggante waaye lu neex sa moroom mën nga ko ko wax kon loola ubbi na bunt ba askan yi séyante ci seen biir daanaka koo tudd ay maamam bala ngaa sori gis ne am nga mbokk moo xam ne ci geneen giir ga ca la bokk ca weneen askan wala bokk kon loolu dafa war a dimbali dafa war a nekk benn jumtuwaay boo xam ne dafay indi stabilité ci sun réew mi muy ak dal waaye warta indi loo xam ne day tàqale waaye mbirum diine it borom bi tabaraka wa bi mu koy wàccee daf ne an aqimu diina wala fii fiihi diine su fekkee ne dañ koo déggee ni ñu ko war a déggee jaare ko ci yoon wi ñu ko war a jaar day boole nit ñëpp ñu nekk benn wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu waaye su fekkee tàqali ko am na nag goo xam ne àgg na ci fanatisme kooku mooy jur fitna ci biir am réew ñeenteel ba lii suñ réew mi amagun ba léegi ñu koy sante yàlla muy ak dal kenn ku nekk ngi dégg ay coup ci réewi Afrique yépp nag ñenn ñi ay yoon yi yoon senegal yàlla mosal ko ci ba léegi loolu yi buñ jàpp mukk ne nit ñu baax ñi dañu fee nekk rek moo tax musiba du fi am ñu bari loolu la ñuy wax ay réew a ngi lakk tey yoo xam ne ay yonent ñoo fa tëdd kon jey sa bopp baaxut nañ xam ne jàmm réew mum am ña fa dëkk ñoo ko fa indi ña fa dëkk di dund di dox ci kaw suuf sa su jàmm amee ñoo ko indi su aw ay amee it ñoo ko indi beneen tomb ba te moom lay mujje mooy nun day wootekati jàmm lañ wootekati bennoo lañ itam suñ sañoon askanu Sénégal ñépp dañuy ànd doon jaamu yàlla yuy jaamu yàlla teg ko ci alxuraan ak sunna te dem liggéeyi te bàyyi wax ju bari ji amul kenn koo xam ne dañuy noonoog moom it wala di ko bañ ngir jëmmam ci waaye jëf yi nag lu ci dëppawul ak alxuraan ak sunna te ñu tudde ko diine loola moom bokk ci bëgguñu ko moo tax li ñuy wax nga di ko dégg ñu naan pas-pasub jàmbur nag moom dafa sensible kenn du ko laal kenn du def di nangam nangam pas-pasub jàmbur mooy lam fas moom te nekkul di wax ci diine ji lu ca bokkut waaye diine ji ku ca wax lu ci bokkul moom dañ koy dindi maanaam loolu mooy li wér ndax mënuñoo wax ne pas-pasub jàmbur la nit ki ñëw taxaw di wax ci xaq yàlla akub yonentam ak i malaayikaam loo xam ne kenn mësu koo dégg ci àdduna ñu ne lii pas-pasub jàmbur la diisu ci wax yàlla xam na ne suñ réew mii tey euh, caricature yi nga xam ne moom la tubaab yi di def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna di ci soow di ci yuuxu ñuy daje di def ay ay conférence ay nàngam di dugg ak génn ñi ngi def wax yonent bi sallallahu alayhi wa ci biir réew mi loo xam ne moo gën a rëy loolu jéggi yonent bi di ko wax sunu borom tabaraka wa taala kon nag loolu yi moo doon loo xam ne lu mat a saafara la kon nun xastewun saagawun waaye nag lépp loo xam ne lu juyoo ak alxuraan ak sunna la ci nin ko jànge sun kem kàttan danu dañuy woote lu wuute ak loola waaye nag dun ñaawal jëme ci kenn du mag du ndaw waaye nag yoon woow yi moom ci lan ñaan yàlla fas yéene jaar ba kenn nuy wuy ji suñu borom tabaraka wa ku ñëw songu nu wala nga dal nu dal ci suñu kaw nag ngir loolu ah jàpp nañ ne ci état lañ nekk boo xam ne eh, yoon a ngi fi benn mu def li ko war waaye su defut li ko war booy song si boo dikkee fekk nu fa nag boo dikkee fa nga nuy fekk kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ bàyyi woon xel ngir waxante ko ak yéen ci bis bii di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq te defal leen ko di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu def jàmm ci sunum réew di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu fegal nu sépp seytaane soo xam ne day ñot di nit ñi di leen jëmale ci fitna wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh